jërëjëf mbokk yi seetaan télévision bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen bëggee am na ñu mbégte ak kontaante di jàkkaarloo ak di àndaat ak yéen mbokk yi ñu ngi ci Dallas Dallas américain bi mu ne mooy le dernier bu mujj bi jàkkaarloo bu mujj bi nga xamante ne ni Balla gay 2 war na ko def ak ki nga xam mooy Moustapha Tine ci seen combat wu le 21 juillet Alburax tëgg ko mu war a am ci arène nationale mbokk yi ñu tuddee ko grand serigne de Dakar El Hadj Pape Ibrahima Diagne kuy bàyyam ñu ne El Hadj Basirou Diagne Marim Diop mm. kon yaakaar naa ne loolu bisu lébu yi la mbokk yi jàkkaarloo bu mujj bi euh, alburaax ànd ak seen affice ànd ak 2 yi ak xarale yu bees yi mbokk yi ñu fas yéene indil leen loo xamante ni nii lu yees pekk la mbokk yi ñu indi leen duplex boo xam ni am ni Moustapha Tine ak Balla Gaye 2 ñoo ciy jàkkaarloo mais Mamadou mbay ak Fadam ñoo nekk ci Balla Gaye Lamine suñu frère ak buur géwél moom moo nekk ci tafaatin Tine Fadam maa ngi lay nuyu bu baax ma bàyyi la nga nuyoo jox buur ak Lamine ñu nuyoo ñu tàmbali waxtaan wi Alaaji Modou Mbaye maa lay nuyu bu baax di la ñaanal jàmm yaakaar naa ne noonu lañ ko waxee noonu lañ koy defee ñu ngi ci dernier jàkkaarloo bi tey jii ñu ngi fii nii ci jàkkaarloo ak Balla Gaye numéro 2 ñu ngi nuyu lamin mi nga xam ne ak buur géwél mi nga xam ne mi Alaaji Sàppali mu nga foofu toog jàkkaarloog ki nga xam ne nii tey ji mooy Amdi Moustapha Tine muy loo nii rek tey jii Modou mbay bokk na ci dernier réglage yi nga xam ne ni tey jii ci la waa làmb di jaar di xool combat bi xam fan la combat bi jëm ndax tey dañoo war a dégg communication keroog ba nga jàkkaarloo ñoom ñaar am nga leen doon limité ñoom ñaar fa wax ja yemoon te tey jii nag wax ji dañ leen di bàyyi ñu wax li ñu bëgg a wax tey waaw ndax tey jii ñun yaakaar naa ne coow rek la ñuy wër te àjjuma la ñu judd alaaji Modou Mbaye ñu bàyyi la ñu doxal ba ci kanam aja alaaji buur nuyu nañ la alaaji Lamine ngi leen di béggee mes frères bismillah ñu tàmbali ci yéen après jox ñaari champion yi ñu nuyoo jërëjëf Modou Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare di nuyu ki nga xamante ni moom mooy Fadam Tou alaaj sàppale comme ni ko buur géwél di waxee di nuyu ñi toog foofu yëpp waaye di nuyu tamit. yow doom yow yaay doom man maay poobar bu moox. <laughs> waaw mën na nekk loolu yëpp mën na nekk wala ma wala ma nekk jinjeer rek. waaw ci dara di nuyu tamit ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye numéro 2 di nuyu ki nga xamante ni moom la war a jàkkaar lool le 21 juillet incha allahu rabi di dimanche bi di ñëw. muy tafaatin ak estafam bi nga xamante ni ñoom la àndal ñoom ñëpp ñu ngi leen di bégge bu baax a baax di leen ziare du nuyu ki nga xamante ni moom mooy buur géwal ma jox ko mu nu ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy seetaan actuellement. jërëjëf euh, Mamadou Lamine dañuy wax jërëjëf Serigne Mbacke Madina di dellu di sant Serigne Mbacke Madina ni ñu ko waxee rek alaaj sàppali mu nga ca geneen wet ga ànd ak Mamadou Mbaye suma doom alias Poobar feggoog lamin Seck nee naa tey yàlla na seytaane xeb dolli ndax ku ne xam ne ni ñun moom. suñuy mbir dara du ci yomb waaye ni nu ko waxee rek ànd ceeg euh, Aba comme ni ko grand cun tuddee rek euh, la grand malfaiteur Baye Ndiaye ak Albourakh Events ah ñu fas yéene ànd nag ak suñuy partenaire waaye man Bour je suis de la Patisen yëg nga ko comme wulli mooy ambassadeur euh, Cobra man may ambassadeur Patisen waaye tey jàpp nañ ni. danañ ko waxtaanee ci biir ak ci biti waaye lamin wolof Njaay dafa ni lu waay bañ mu yegg si bul ko àppal bés bés ba jot na ni ko am li Moustapha daan waxee borom sàkkande mooy ñaari góor bu ñu dajee ci àll danañu jëflante ak njàmbaar foog kenn des waaye Balla gay 2 alias Simba jekk na ànd ak ay bokkam tey dinañ ko waxtaanee moom Lamine macha allah muy lu am solo jaajëfal leen bu baax a baax xam naa ni lamin dañuy bàyyi Balla Gaye 2 mu nuyu jox Tapha mu nuyoo waxtaan wi tàmbali Aïcha Omar ñu ngi lay nuyu. Modou maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, di nuyu Fadam di nuyu lamin bi nga xamante ne moo toog ci plateau be di nuyu si tamit Bour Gueweul di nuyu suma adversaire Tapha Tine ginnaaw bu ma sante yàlla aussi tamit julliwaat si yonent bi sallallahu alayhi sant sallam sant sumay ñaari waajur mm-hmm. ñaanal sama papa ak suma turando ak bépp papa bu génn àdduna yàlla yërëm ko te xaaru ko àjjana di ñaanal képp ku dese yaay yàlla bàyyilaak la sa yaay ba nga fekk ba mu fekkee lépp. Mm-hmm. di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér. Mm-hmm. njabootu maam Cheikh ñu yàgg fi loolu te mm-hmm. kilifa diine nuyu njabootu maam Cheikh na Cheikh Sadibou maam Limaamu Laay bu Kunta Njaasaan suma dëkk waa Casamance. Sédhiou en tout cas dinaa jum. sama mbokk balanta yi sama mbokk jaaxanke yi sama mbokk bay nunke yi ma kenn mu limit naa jum mm. loolu encore une fois moo koy nga xam ne sa doom muy bëri jëflante ñaanal ko yàlla may ko ndam te incha allah nañ ko am di ñaan yàlla aussi tamit bis bi yàlla mayuñ ci ndam mm-hmm. ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rahmaani rahim di nuyoo si tamit suma entraîneur yi nga xamante ne ñoo nekkoon IMSEP di liggéey ak grâce que suma kilifa Abdoul Aziz Aly Ndiaye maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla moo xam lépp lu mu bëgg yàlla na ko suñu borom defaral. Mm. Abdou maa ngi lay ñaanal yàlla encore une fois lépp li nga bëgg sa àdduna yàlla na ko yàlla suñu borom defaral. Mm. yàlla na yàlla may wér may la mucc may la tey gudd fan ak wér gi yaram na sa gudd fan. sama njëriñ la waaye rawatina njëriñ ñu bare bari bari bari la bari la ci réew mi. Mm. ba tax na maa ngi koy ñaan ak sa njaboot. di nuyu suma papa suma kilifa euh, Moussa Fall mi nga xamante ne moom laa àndaloon IMSET di liggéey. vraiment ma koy sant di ko gërëm ànd ak man ñëwaat fii nga xamante ne mooy Sénégal. Mhm. ñu continuer liggéey bi ak travail bi. di gërëm aussi tamit coach yi fa nekk ku ci mel ni Bakary. Mhm. maa ngi koy sant sama coach ci boxeur bi. Mhm. ci mel ni aussi tamit euh, Vince Dabaya maa ngi koy sant di ko gërëm. Melou aussi tamit c'est la même chose. di gërëm masata di gërëm Baye Ndiaye di gërëm Kor Ndiak Omar Gueye. maa ngi koy sant di gërëm Modou Fall di suma wax suma lépp. di nuyu si tamit képp kuy supporteru Balla Gaye numéro de di leen ñaanal jàmm di ñaanal sama yaay yàlla na ko yàlla defal jàmm ak mbooloo mu jullit. di nuyu ay mbokkam balante yi. di gërëm si tamit <clears throat> euh, jibiloo bi nga xamante ne saalam depuis ñu ñëw fii ba léegi. vraiment daf ñuy bàyyi ñu liggéey nekk suñu mag nekk suñu xarit nekk suñu wëllëre. ba tax na ñu ngi koy sant grand ji bi gis nañ jàppale ci saal bi heure bu ñu ko soxlaa. Mm. dañuy dem liggéey sans problème mburu gi jooy ku fa soxla rawatina école de Balla Gaye dañ fay entrenement war mu yëkkati alalam di ko jox booy di leen jàppale. Mhm. Omar Sow maa ngi koy gërëm bu baax mi nga xamante ne vraiment mu ngi jël ay teraanga di ma ko defaral. Mhm. maa ngi koy ñaanal yàlla Omzo Omar Sow Thomas maa ngi lay bégg bu baax a baax di la ñaanal jàmm foo mhm. toll. di gërëm aussi tamit. Cheikh Mbacke Gueye. di gërëm Cheikh Mbacke Gueye. di gërëm euh, Baara Gueye. Clean Oil. bu baax a baax di gërëm mm-hmm. Amet Naar mm-hmm. di gërëm suma xarit suma mon frère mm-hmm. Boucher Ketchup ba nga xamante ne wax dëgg yàlla ba combat bi tax bi léegi amul jàmm waaye mu nekkoon ci ruqam rek jàpp te bàyyi Boucher maa ngi sant maa ngi lay gërëm di gërëm aussi tamit suma mag liiru jaan nga xamante ne wax dëgg yàlla moom géejawaay ko ñor. Mhm. l' ambassadeur waaw <laughs> di gërëm ñëpp daal bu ma limee dinaa jëm xam naa des na. Mhm. mais maa ngi gërëm Omar bu baax a baax maa ngi gërëm Simon suma xarit. macha allah maa ngi leen di gërëm en attendant ñu continuer ci waxtaan di gërëm suma dëkkandoo yi actuellement. joxal am na Moustapha mu nuyoo. waa am di maa ngi lay nuyu di la jox parole bi vas waa waaw bon salaamaaleykum euh, Balla maa ngi lay fay. di nuyu képp ku nekk ci plateau boobu Fadam Modou Mbaye ak ñi fi nekk te gisuma leen kon maa ngi leen di nuyu di nuyu aussi ñi nekk ci plateau bi muy Bourou Guewel ak Lamine technicien yi di nuyu aussi suma assant yi nekk fii muy papa ak Elas di nuyu aussi Eric ak jabaram waaw di nuyu aussi suma suma fansi yëpp di nuyu bokk yëpp di nuyu waa Réfane nga xam la fa laa juddoo ñëw ñu dalal ma fii ci Medina di nuyu estafu Bawol mbooloo yëpp di nuyu kot suñ Mbaye Ndawaan Ibra Diagne ab Ablaye Gueye ak lutteurs yi Bawol yëpp daal bàyyiwuma kenn maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam ku ci am combat yal na nga daan ko amul combat yal na nga ko am temps yi ñoom ñëpp ñu ngi xappu si woon ci école bi jàpp si contact yi ak ñoom seen vraiment ma leen di ndokkeel ñoom ñëpp. di am mbégte hmm. xam nga ci ñoom ñëpp daal di sant président hmm. Fallou Faye aussi suñu président écrit bi voilà di sant aussi sumay mbokk yëpp daal di wax ne xam nga taxaw bi rafet na jàpp nañ ci combat bi voilà di sant aussi waa Abidjan nga xam ne folaa laa neexoon doon préparé wu di sant coach David Pokola euh, ak boy ma doon ànd ak ñoom Amidou Isaka hmm, Anderson Willy West nga xam ne tout le temps ñoo doon ànd le matin di courir xam nga ma leen di nuyu ñoom ñëpp après ñëw fii continuer science yi ak coach yi nekk si fii coach su Baye Sarr docteur coach su Mbaye Guèye ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm bon di leen sant di wax ne préparation yi macha allah quoi di sant aussi Mohamed Serena nga xam ne moom mooy musculation madame Kébé borom jim bi voilà maa ngi koy nuyu bu baax quoi di nuyu famille bi yëpp daal di wax ne xam nga kontaan naa voilà après ñu continuer ci. question yi voilà ñu avancé quoi di sant aussi Aziz Aziz Baye Ndiaye waa alburax bi yëpp xam nga comme la ma doon wax rek man fala bokk du ma nangu kenn ëppale ma fa parce que seen i teraanga day jóge ci ñoom di ñëw ci man ci samay préparation pendant dix ans voilà loolu sant yàlla la quoi tey kon bu ñu ñëwee taxawal sama combat ak Balla Gaye dama ciy bégg quoi di sant aussi armée bi yëpp nag su suule militaire la bu ma nekk colonel commandant rek voilà mu ngi noonu di sant police sapeur pompier gendarmerie ñoom ñëpp armée bi yëpp daal ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. am di xanaa combat bi da nga cee làqatu ci armée bi danga am loo ci jëflanteeg waa armée bi. waaw loolu long time lu yàgg la quoi wax dëgg yàlla parce que ñoom xam seen secret moom seen secret bopp la quoi vraiment mais. yàgg yàgg naa liggéey ak ñoom quoi franchement. Alaaji Buur Alaaji Faram Lamine armée bi li loolu laa leen nuyoo buur Lamine Fadam. Ah, euh, fi may ñëw ak moom ci préparation bi yaakaar naa ni foofu la ñu war a njëkkee ñoom ñaar dañu bëre woon le 2 juin 2013 war a bëriwaat incha allah dimanche 21 juillet 2024. 11 ans après préparation bu njëkk bi Tapha Tine dafa demoon Amérique foofu la waajale woon cette fois si mu yam Afrique ci dëkk bu ñuy wax Côte d'Ivoire lan moo tax. cette fois ci mu mu mu mu yem fi nga xamante ne moom mooy Amérique fu fii Côte d'Ivoire lan moo tax nga basé wu fii Afrique. waaw Côte d'Ivoire du du du combat bi rek moo taxoon ma dem fa boo xoolee quatre ans cinq ans yëpp daanaka fa laay dem pare kon ak suma parrain muy Iric mu am lu mu am fii comme li mu am Sénégal mu seere ko Abidjan xam nga ma bokk ci ay partenaire yi nga xam ne dañuy liggéey loolu tax ma dem ci gym bi nekk foofu mm. dem entraîner foofu. xam nga te foofu y a tout quoi Afrique nga nekk. Mhm. da ngay mel ni ku nekk Sénégal. voilà non problème. Mhm. voilà lépp a nga fa quoi tout. dañ dañ la proposé nga dem foofu noonu wala yow yaa def sa choix dem foofu. waa bokk na ci xam nga xam nga mbër da ngay am staff. Mhm. am ñuy wax ngay dégg comme ñii xam nga ñëw nañu toog wax ak Eric dawit ñu waxtaan et mais bi ñu waxtaanee Côte d'Ivoire la ñu choisir mais choisir yeneen. lan lan moo am Côte d'Ivoire lu particulier loo xamante ne nii tey tax na Tapha Tine du combat bi kese mais comme ni nga ko waxee combat yu bëri bëgg nga ko fa préparer lan moo am Côte d'Ivoire lu particulier no maanaam boo fa neexee maanaam ci préparation combat boobu lépp ngay am quoi ñu y a tout hmm. de y a tout a waaw lépp nga foog quoi comme Afrique nga nekk xam nga loo bëgg dox danga koy dem doxi lijjanti ko comme ni ko bëggee sans problème quoi vraiment et puis fi ma ne boo bëggee dem Niger da ngay dem vite fait boo bëggee dem Burkina da ngay dem vite fait boo bëggee dem euh, comment dirais yeneen dëkk yu bëri da ngay dem vite fait même pas quarante cinq minutes voilà muy noonu quoi. Lamine fi nga da nga laal fu am solo danga wax ci Tafatine ci préparation wu combat bu njëkk ba ak bii bu njëkk ba nga ni Tafatine mu dem Amérique bi yoon il a choisi l'Afrique mais bala Gaye 2 son premier combat ak Tafatine demul fen sa continuité. contre Yaxya moom la bëree ak tafaatin li mu li mu li mu entraîner Yaxya moom la continuer entraîner ko bëre ko ak Tafatine bi yoon moom il a choisi dem INSEPS kon ñu dugg ci même débat bi foofu rek Balla pourquoi le choix de INSEPS. waaw ko premier combat bi demoon na Amérique. ok 2013 c'est la même chose. ok donc euh, voilà. mais yàggoo fa. ah non non ay u mois quinze jours. un mois quinze jours ok. waaw un mois quinze jours laa ko def après. Mm. mais maa ngi nuyu si tamit maa ngi jégalu balaa maa dugg ci question bi di nuyu ki nga xamante ne mooy Pape Mama Fall suñu président école de lutte. Mm-hmm. ak mbay sàmm bi nga xamante ne nag vraiment mu ngi xëy suba ba ngoon di nekk si ñun ci liggéey bi ak encadré bu école de lutte Balla ak école de lutte Balla Gaye yëpp yi nga xamante ne ñu mooy courage heure yi ñuy jug metti na. Mm-hmm. pour jug ko mais yéen a ma ndam moo tax ñu def loolu. macha allah donc ba tax na ah, premier combat bi tëkki woon naa. Mm-hmm. après waaw waaw. ok bi yoon nga dem INSEPS. INSEP waaw su nekkul combat bi kese nga fa nga fay soog a dem. waaw ok mais pourquoi ce combat là t'as choisi INSEP. là INSEP y a beaucoup de choses. ok maanaam boo fa nekkee wax dëgg yàlla di nga entraîner di nga récupérer te nombre de séances yi ñuy tegloo parce que pour récupération bu bëri mooy tax nga mun ko def mooy di nga entraîner trois séances wala quatre séances yoo xamante ne yow récupération boo ko amul doo ko mën. doo mën a def séance yooyu doo mën a def séance loolu bokk na tax ñu gën a dem pour liggéey. nëbb suñu bopp lalu loolu nag d'une part moo ñu moo ñu gën a poussé ñu yóbbu di dem Europe. ngeen dem Europe ah, préparé ji alors naka préparation bi ça a été. oui ça a été mais c' est pas facile. c' était pas facile. non non non ah. pas facile que groupe la boo xamante ne équipe la kon ni nga nekkee yor kon euh, ni nga nekkee si école de bi. ok mais groupe la on travaille boo xamante ni kenn ku nekk ak lu mu yor donc il n' est pas facile léeg groupe bi ñoom ñëppay daje léeg-léeg kenn ku nekk moom mooy jëlee fam mais léeg-léeg temps en temps bu ñu bëggee test dëgg ñoom ñëpp ñooy daje li ñu la maanaam da nga def maanaam ñu def séance collective mu ngi mel nga jàng ñu la euh, da ngay da ngay jël leçon bi nga xamante ne moom nga war a jàng waaw tari ko léegi nag boo war a tari leçon bi day métti mm-hmm. waaw boobu mooy mooy waral ñeenti séance yi wala yu demee noonu daal ñeenti séance mhm. ah, buur Fadam yaakaar naa ni dégg ngeen Lamine dégg nga li Balla tontu ci wàllu préparation bi buur Fadam. waaw euh, man fi may fi may dikkee rek euh, sama question lay njëkkee ci am ni Moussa soog a barasiku dem ci Simba euh, tey dañu mën nañ wax ni que ñetti signature de contrat yi jot am mën nañ ko jàngatee ci ñetti angle mooy bu njëkk bi dañuy gis Balla Gaye 2 buy heurtal Tapha Tine garde toujours être la même personne bu deuxième bi bu deuxième bi arène nationale Tapha keroog dafa exploser ba toucher le fond keroog bi mu yuuxoo même tout le monde a été mais ñetteelu yoon bi ñu dajee même ay supporters u Tapha Tine ils se disent que Tapha ñemewul Balla Gaye 2 parce que Balla Gaye 2 dafa défoulé wu ci ni mu ko neexee wax ak Tapha ci ni mu ko neexee ba utiliser sax yenn mots yoo xam ne mooy da nga ñàkk jom wala da nga nangam ñu gis ne que Tafa saa bu bala waxee noonu dafay laal orgueil am keroog est-ce que Tafa amul regret amul lu muy rëccu ci signature bi passé est-ce que melu ma ni moom wala pourquoi mënu moon am taxawaay ni moom wala bataille psychologique la simplement boo xam ni Tafa noonu lañ ko yebee mu ñëw topp lañ ko digal ba jàkkaarloo bi jeex. buur xam nga doomu aadama bu ne ak niñ la yaree man Réfane laa yaroo. Mm, amul lu ma mun a soppi suma life du yow du Balla Gaye du Assis Ndiaye mi teg làmb ji du keneen mhm. jamais de la vie dañ may yar-yar bu jaar yoon jàngal ma alxuraan mhm. garab gi ñu ma doon yare don mu ngi refan garab googu donc doy na ma ci yar bu ma gisee garab gi kese mën na maa yar wallahi azim mhm. kon duma ma gis lii tey muy sensé dara ci sama vie quoi man c'est saa lu neex waaye na ma wax man du ma tontu kenn yéen xam ngeen ma ci làmb lu ma mën ak lu ma mënul. xam ngeen ma bu baax a baax. bu dee fulla ak fayda jom ak ngor doomu aadama du ma nangu mu ma ko suma life kon nag kay wax ay waxi salté mag ñoom seen moom la engagé. kay wax lu salte ci moom la nekk mais newul ci Tapha mais ni mu communiqué ak yow est-ce que neex na la. yow personnellement kenn ku ne kenn ku ne ak niñ la yare ah na ngay waxee man niñ ma yare noonu lay waxee calme très serein laras lijjantiwuma ko. amul dara lu muy wàññi ci sa psychologie non jamais de la parce que même communication bi la utilisé woon ak yow ah. xam nga lan moo gën a metti mhm. ci làmb toog di sensé nii ak sa adversaire y a rien dedans du dara. da ngay ànd ak sa papa ak say frère ñu boole leen saaga loolu lan moo ko gën a métti nga muñ ko dem sa yoon. Mhm. ah <laughs> wala problème y' a kon jëlul benn dessus ci yow xoolal wallahi asim ñu mel ni yéen yéen a ma ko nit li man yëguma ko woon sax santiru ko woon sax. te pourtant yow la jàkkaarloo eh, tamit. barke yonent yàlla Mamadou santiru ma ko. Mhm, santiroo ko. ma laaj Tapha Tine est-ce que est-ce que keroog ci jàkkaarloo bi amul nervosité c'est-à-dire est-ce que Tapha merul Balla yóbbu yóbbuwu la foo xamante ne merloo na la. non Modou mbay xam nga man du tey laa def face à face quoi depuis ma nekk mbër bu ndaw ba léegi maa ngi def face à face bu may dem xam naa lan moo fa war ak lan la laaj bu leen comparer face bi amoon stade ak bi am bee comme ça nga toog serein cool ñëpp toog du ma def yëf voilà damay def li face à bi laaj face à bi stade suur boobu loolu la laajoon face à bi ñu ñëwoon toog loolu la laajoon suñu première face à face loolu la laajoon bii lii la laaj loolu laay def. moo c'est pas fou hein oh, fépp fu ma jëm man laa la wax man fu ma jëm xam naa ko ak lan laa war a wax. kon li muy def nii dara dara yëngalu la ci sentiroo ni sax Balla Gaye nga taxaw sa kanam di wax yi muy wax. t'as fait dix-huit ans dix-neuf ans de carrière bu ma amatul expérience de làmb fu ma jëm. Hmm. refan ay hectares laa fa am. Ah. yàlla yàllaa ngi commencé taw ma dem béyi ko <laughs> loolu la te pourtant ni mu wax ak yow neexul benn bool-bool yi bi ñu xëyee lan demee ci réseaux sociaux yi bool-bool yu ci bari dafa am dañu am ñoom lu leen naqari pourquoi Tafa kii mën a comporté woon nii ci kanamam te deful benn réaction. mooy mooy mooy li ma la li ma wax rek doomu aadama mu ne ak ni ñu la yare ku ne ak ni ñu la yare noonu ngay réagir man ni ñu may yare noonu laay réagir <laughs> la res nag. keneen ak keneen loolu mais waaw Balla Balla Gaye dafa mel ni bëgg na tontu ci li Tapha Tine di wax nii de. ci ci loolu loolu laa bëgg mu wax si Omar dafa ne na nit ku ne ni nga mel nga jëfee keroog. waaw oh, Mourou je pense je je pense je pense façon nit li ngay dund sa kër wala li ngay dund sa koñ ak li ngay dund ci làmb du benn c'est pas la même chose bu ñu jaawalee liggéey ak ñàkk liggéey tu vois moi je suis responsable tout le monde connaît xam samay mbokk xam nañ ma ñi yar xam nañ ma mais bu suma liggéey jotee li mu war dama koy def. amul mbindeef buy dox ci suuf ëpp ma yar amul mbindeef buy dox ci suuf gën ma nekk nit gën ma correct moi je suis sage je suis sage je suis correct mais maintenant là dama respecté suma liggéey bu liggéey bi lu mu laaj moom laay def moom nu muy comportement du ma ko lijjën sax yàlla xam na intéressé wu ma plus important moi mooy que signature bu ñu jotee li ma war rek lay def. est-ce que bi signature bi jeexee bi nga ñibbee sa kër neewoo man am naa lenn lu ma jiitoo Tapha Tine léegi ci côté psychologie. non non non non pourtant du ay côté psychologique parce que signature bee ko laajoon rek ma def ko parce que man dama jàpp ne loolu laa waroon def def naa ko mais li res man bàyyi ma ci xel ko wax dëgg yàlla. Hmm. waaw bàyyi ma ci xel. bàyyiwoo ci xel. non Fadam. am na solo am na solo maa ngi nuyu gars yëpp euh, nga jàkkaarloog mbër mi di tafaatin mu toog 10 ans yu mu daanul ci làmb daan ay grand champion yoo xam ne saa yu jàkkaarloo yow daan ñi daan man maa leen daan ban Balla Gaye numéro 2 la ñu war a xaar ci digganteem ak Tapha ci dimanche bi ñu jëm waaw ah, mu euh, Fadam boo sotee xam nga wax jooju dama koy dégg tout le temps dama yaakaar ne moom da ci bàyyiwul xel quoi est-ce xam nga ne ñaata mbër laa mos bëri ci àdduna ñoo xam ne mosuñoo daan maa leen daan mosu ñoo daanu bokk astafurlah. Hmm. maa leen daan. Hmm. waaw. moom peut xam naa. dafa hmm. dafa comprendre. waaw qualifié bi nga koy daan yaa ko njëkk daan. waaw ak kan. waaw moom Modou bi nga koy daan yaa ko njëkk a daan. ak kan ak Yaxya. ak kan. Eh, eh, dimbali ma foofu. ak kan doon lim du fi jeex. loolu def moom. maam Góor Diouf waaw. bawol la nekkoon ñoom ñaar ñoo nekkoon ñoo bokkoon day ak baay. kii dama ko daan arène. kii dama ko daan arène hmm. daan ko mbapat moom Koli Faye Koli Faye Maam Góor Diouf hmm. ko daan arène moom hmm. moom la àndaloon mbapat ñëw mu xataraayu kon ni mu yàgg xataraayu nii rek moom bon après moom mu ñëw mbappat ma daan ko Maam Góor Diouf toog kon Maam Góor Diouf nu mu toogee seetaan ñu man ak Tafatine ma daan ko kon Tafatine nu mu toogee seetaan Maam Góor Diouf ma daan ko arène noonu la mais du question ko affaire yi cest à gis nga àdduna pour man liggéey dañ koy respecté Baye Ndiaye ak buur géwél ak santul kenn pour mu changer làmb boo ci duggee lépp li la war luy neexal làmb da koy def mais xam nga sénégalais yi dañuy am pas pas du ne sax sénégalais yi am na ñoo xamante ne nit boo xamante ne dafa sincère dañuy jaawale ak nit ku xamadi c'est pas la même chose. Mm. nit ki li mu wax ci suuf ba nit ku tontu ko ci kaw. Mm. loolu la ñu war a c'est très important nit di di di jàngat ci loolu. dafa lu mu la wax ci suuf dafa am lu mu la wax ci suuf te yëguñu ko. mais mais buur mais mais am na loo xamante ne. Hmm. jàkkaarloo nañ ma ne ko bul ma ko wax mu jaar si pourtant kenn commentaire ci no moom xam na ko xam nga moo tax gis nga yar respect c'est si propre man dama ko respecté man ba bëgguma ba bëgguma wax moom lim ma wax. Hmm. intéressé wu loolu maa ngi moom la concerné fu góor la ama réel ndigal hmm. c'est ça la vérité hmm. fii xolal liggéey da koy respecté fii kenn ku nekk boo duggee sa kër da nga yor sa njaboot hmm. yor say soxna yor doom nekk fa responsable moi je sais pas irresponsable ah moi je suis responsable mais le gars il faut qu'il le connaisse quand le moi moi quand il travaillait je travaillais comme un Hmm? c'est ça la vérité. kon c'est-à-dire yow keroog fi ngeen taxawoon. zaaru zaaru géew la waaw liggéey la. c'est ça. Tapha Tine wuyul Balla nee na keroog liggéey moo ko indi woon te liggéeyam la doon def. mais comme moi liggéey la comme ni ma ko waxee liggéey la suñu job la mais tam xam man liggéey bu ma koy liggéey day ànd ak respect quoi man du ma manqué respect soit nag koo dóor day fayu wala koo xas day fayu wala koo saaga day fayu loolu la. mais sponsor moo ñuy solal c'est très normal man ku ma dafa def soo amul fen bu laajee ma feccal sponsor bi sabar dama koy def mais man samay parole ku ne xam na ne respect la quoi. mais kon ah, pourquoi mu ne da ko wax da nga ko wax benn wax ci suuf wax boo xam ni moom bugg ci jaara te am di ni kenn ëpp ko yar mais donc moom lan lay réclamer mais mais danga koy laaj lan la wax bu ñu wax ko lool ah dafa am lu mu wax yow nga tontu ko. am na vidéo man bu ma jot rek ma ne ko boo waxaatee lii ma wax la lii c'est tout loolu la. boo ko waaw lan la waxoon lan la ah, daal suñuy sens la. mais Omar man man man man ñu wax la man tafaatin laa wax man tafaatin ay mooyu virgule du génn suma lameñ mais tam xam nga nit koo xas wala Lamine je pense que ne mooy mooy li ma wax rek xam nga moom kon xam na li mu def cest à du question que ay lu waay def nga wax ko wala nangam en fait loolu du yëfu góor quoi xam nga te moom góor yàlla la man góor yàlla laa loolu pour man jarul commentaire ak ay détails xam nga moom ku am respecté la ku ma respecté la moom dama ko respecté kon ni ma ko respecté mais loolu a door ko làmb la loolu amul problème quoi parce que wax na ma loo xamante ne man xam naa ko man wax na ma loo xam wax naa ko loo xam ne xam na ko pour man jarul détail ay dañ ma yaar fii kuñ fi amul ku juddu ci yoon bu baax ak moo xam foo juddoo yàlla rekk a xam dañ lay yar ci yor bu teggin lii làmb rek Tapha day ñëw pour neexal man ma war a ñëw pour neexal Tapha 2013 maak moom da doon soo carrément. tàkk ci riib di nga ci nit mbatt mais loolu fi amoon mais xëy na peut-être bi stratégie bu muy doxalee la rek premier scientifique bi dafa calme n'est-ce pas ma calme deuxième bi dafa ñëw yëngal wax. man nag am naa droit aussi sama sama troisième. mu ñëw yëngal wax mais ndax nekkul li nga ko wax waroo ko ko wax. non je le respecte beaucoup vraiment la le respecte le gars hmm. ngay bëri mbër mu mel mu ngi ni jàkkaarloog yow. Hmm. lam la wax ca signature ba noonu bu la ko waxee ca biir géew ba lan moo ci mën am. waaw mooy lim la xam nga dala wax benn mot bu am solo ne day dox wala mu taxaw nit saaga la. Hmm. saaga say waajur nga muñ ko. peut-être wax na boo xam wax boo xam ne bàyyiwu ci sa xel moom. fii ñun ñëpp dañuy dox nga gis nit jaar nangam jaar fu bon mais ah ouais problème mbaam bu la wéqee nga wéqee ñaari léegi dañuy dugg directement ci biir combat bi Tapha Tine keroog bi ñu la waxee da ngaa ñëw ci dynamique. Mm-hmm. nga nekk nga wax ci dynamique bi nga nekk yow Moustapha Tine. Mm-hmm. wax ci dynamique bi baal Balla nekk. léegi damaa bëgg Tapha Tine Balla seen dynamique yooyu ngeen nekk Lamine xam nga ci dynamique bi Tapha nekk. Tafa trois derniers combats am ku mu bëreel. Tapha Tine bi mu ko bi ko Ama Baldé daanee 2014 wala 2015 2015 ba léegi. ci TNT bi ba léegi dafa nekk ci ay série de victoire. ndax bu mu fa jógee. waaw bu mu fa jógee Zos la bëreel. daan ko. jóge fa bëri ak Yékini Junior 2018. Amadou Bari. waaw waaw Bari waaw ko ñu Balla daan ko ah. jóge foofu noonu. bëriwaat ak kan. booy ña lañ ñaa waaw daan ko. bëreeg booy ñaa bu mu ko daanee pare ñu jox ko. bëreeg bombardier après bëreeg Eumeu Sène. bëreeg Eumeu Sène maanaam mu ngi ci cinq victoire su ma juumul. Mm-hmm. léegi nag tafaatin dafa ne Balla Gaye man ci dynamique bi ma nekk ak yow dynamique bi nga nekk bu ma neexoon duma la jël. léegi waxuñu sax waxu jël bi mais ñoom ñaar ci ñaari dynamique yi nekk ñu war a daje ci biir géew bi Balla dama bëgg nga tontu Tapha ci dynamique bi mu nekk moom nee na cest diir dire nee na moom antanuloo ko yow man noonu laa ko déggee non je pense pas que il faut ma dégg moom ba xam daf ne Anthony moo ko. Tapha wuyul foofu mais on que nga may. Tapha <laughs> mais man ci dynamique bi nga nekk ak dynamique bi Balla nekk ñu ñëwaat ci tuuti. mais loolu jagleel la sant yàlla la loolu yàlla moom ma ko defal loolu moom mbiru yàlla suñu borom la quoi. gëm nga loolu mooy def différence le le 21 loolu mën na def différence. waaw damay ñaan yàlla yàlla. xam nga victoire yi continent loolu la te ñun ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey gëm nañu ne yàlla dañu may ndam incha allah le 21. Hmm. xam nga lu ma jaaxal euh, Mamadou euh, dafa am baat waaw si mbaa ca tontu ci loolu ba pare. non loolu incha allah le 21 lay yem incha allah bu neex yàlla. dynamique bi mu nekk. waaw ah, dynamique bi mu nekk. waaw. macha allah lu baaxoon la nag dynamique bi mu nekkoon lu baaxoon la mais incha allah. le 21 lay yem. maanaam <laughs> incha allah bu neexee yàlla. le 21 dama koy daal Tapha Tine wóyul allah. waaw man man laa la wax ci wàllu sport laa la wax liggéey naa lu ma may ndam. le 21 wàllu laa la wax de man ci wàllu sport. liggéey naa sama doole lu ma may ndam ci kaw waa ji incha allahu rabi. bu dee entraînement kese mooy maye laa la wax sport bu dee mooy maye laa wax man liggéey naa lu ma may ndam si kawam incha la res yàlla suñu boroom la la res God la res God is one je comprends pas. mais yàlla yàlla bay sa tool tafa. je comprends pas il a dit la ilaha illallah. donc je ne comprends pas. ah que yàlla mooy def lépp ah. yàlla mooy may mooy xañe suñu nooy yàlla la neex. Mm. nee na moom liggéey na li ma may ndam est-ce que loolu yàlla la ci tudd. Hmm. maintenant bu dee liggéey la rek nit ñu toog fii dem bàyyi suñu njaboot abandonné tout bu dee liggéey la rek wax ma waxu ndam man bu dee liggéey ay ndam yi nii pour man loolu gën a yomb parce que minute bu ñuy bëri bu dee liggéey rek mooy may ndam pour man loolu gën a yomb pour man. Hmm. c'est facile. mais Balla Gaye dafa mel ni su ma déggee ngay wax. Balla laisse-moi terminer Fadam s'il te plaît. maintenant boo mu ne moo gën a facile. parce que li muy wax nii. non fii la fekk baax quoi dañoo liggéey ba xàmmeetuñu ñun ndax ku ñu gis Balla Gaye maanaam fu ku gis Balla Gaye avant ak léegi. wala nga gis ko comportement am ak lépp li nga xamante ne suñu borom dogal na ma am ko kon liggéey moom ko may. xam nga nit ñi dañuy jaawale lu amul bu dee bëre aussi tamit. Mm. bëre rek. Mm. bëre man ak moom loolu duma ma ko laam-laame. doo ko maanaam. du ma ko laam-laame maanaam maanaam ku ko ci dàq du ma ko laam-laame. ok ah. bëgg wax ne yaa dàq bëri Tapha Tine. rasu moom mën na ko wax dëgg yàlla on dit vrai. rasu kan na rasu. waaw sama waa ji mën na rasu. Lamine wuy leen foofu Lamine wuy leen. Mm, kon kon Tapha Tine technique. am lay yoo xam ne danga nga kii technique la la la la gagné. waxuma loolu de de en fait sama combat moom bu ci rasuwul du bëre. Ah. incha kon moom mënu la mënu la imposer kon moom mënu la imposer. bu ci ras waaw da nga koy laaj ba gëm naa ne bu ci rasul mënu bëri ah parce que bu dee wàllum bëre rek non. da ngay pause. si pas Tafatine Mamadou. Mamadou. waaw Tafatine ñi mu dajeel ñëpp. Tafatine ñi mu dajeel ñëpp même wax bi lay wax. ku ma ni puusal da ngay puus Balla Gaye de jàkkaarloog moom ne ko man góor du taxaw ak man naan ma puusal ma puus ba pare ne ko bu may bëreeg yow boo rasuwul doo bëre buur. buur déglu lii. Balla Gaye dafa ni tafaatin su may bëreeg yow boo rasuwul doo bëre Tapha yaa ngi jàkkaarloog Balla gay tontu ko ci loolu balaa ñu balaa buur di di développé. pour wax ji bañ a sori. bëre bu wér te wóor laa yor. bëre pur. bu wér te te wóor laa yor te moom laa koy tegal incha allahu rabi. comme dab. mooy rasu bi mooy mooy li mooy rasu du ma du ma fi nekk di sensé comme la ma waxoon ama seen laa koy wax. bëre spectacle ak bërëb bu wér c'est pas le man bërëb bu wér te wër laa yor moom laay teg amul ku ma ko mën a sensé loolu li may teg incha allah. boo ko nee pousse buur man su may wax dama lay wax lu leer bëre bu wér te wër laa yor moom laay teg incha allah le source tout court Fadam. non nous nous. waaw on beaucoup de choses pour lutte. Hmm. parce que on a travaillé beaucoup de techniques et de forces et morale. c'est pas la même chose. maintenant non nous on travaille tout. ok on travaille tout maintenant mooy li ma koy wax rek mooy wax na la lim la wax la woon fa woon maanaam moom lim mën lay def mais moo tax may la bu rasul du bëri du ko changer parce que je le connais. parce que xam naa ko bu baax. mais lan moo tax yaakaaroo ki Tapha benn bëree. benn benn non yaakaar naa ci moom bëreem. xam naa bëreem moom. li mu war a def du ko def. mooy lan lan lay def moom. xam nañ xamante nañ. li mu war a def du ko def. li on sol gisoo ni ba euh, gisoo ni Tapha ci dernière année yi changé na stratégie. bu pare ba nga koy daan. bi nga koy daan ci Leewtoo Tapha da doon taxaw ba jeex bi ko Ama Baldé di sàcc di daan moom dadoon taxaw ba jeex. ñu gis ni léegi day wàcc waaw. léegi day wàcc parce que booy xool bi muy signé ak Ama Baldé dañuy damay taxaw ba ni jon gis nañ ni léegi nag taxawatul day wàcc cadre adversaire bi dox ci kawam. Mm-hmm. bu defee loolu sa diggante ak yow lu mën a am foofu. non xam nga moom ba muy bëre ak Ama Baldé peut-être euh, loolu moo ko doyoon rek pour mu def ko. Mm. mais ba mu ñëwee pare aussi ren moom day wàcc rek dox. xam nga wàcc ñëw xeex ak bëre bokkul c'est pas la même chose damay wàcc ñëw jàkkaarloo yow xeex après doo a bëre bi nag aussi tamit loo fa deful moom du ko fa def hmm? loolu Balla Gaye de dafa mel ni. lan lay ree lan la Tafa di ree ci li Balla wax. waaw na tontu waaw waaw Tafa ree na de Balla Gaye <laughs> Tafa dafa mel ni gëmul li nga wax ah. ah non non dafa tontu dafa dafa tontu. tafaatin bi nga waxee léegi dafa ree dafa mel ni gëmul li nga wax trop wala boog mu jàpp ni li nga wax yow gëmuloo ko. non non boobu man li ma la wax nag wax dëgg yàlla moom sax moo gën a xam dama ko gëm. buur su. waa buur. dafa lu may seetlu lu garaaw benn remarque bu may def. dafa mel ni Balla Gaye 2 dafay minimiser Tapha Tine de trop même sur sa communication non, non, sur son comportement un Bour s'il te plaît est-ce que c'est pas sa stratégie <laughs> Tapha Tine c'est un grand respecte beaucoup encore une fois on peut pas que ngay wax loolu parce que duma nit ko ah ok d'accord naa mais duma def loolu parce que adversaire bu ma respecté la nee naa la bu ma jëlee Tapha Tine premier signature bi dama naan la mm. damay da ngay da da maanaam da ngay sawar ci liggéey parce que boo liggéeyul doo ko daan on dit vrai c'est des gens aussi nañu waxante dëgg ay wax rek taxul may tekk fi di wax parce que dama liggéey ba gëm sama bopp woolu suma bopp moo tax may wax mais Tapha Tine kan moo koy am di ko di ko négocier wala am na ku ci boo ko amee boo liggéeyul du am dara loolu moom amul sax fii la xar bi jaar ku mel ni Tapha Tine war a respecté la Balla Gaye da nga ni gees ne ñu nit ci plateau bi bi doomu aadama yi di wax dañu Tapha Tine moo ma ëpp doole moo ma mën su ma jàppee dafa may daan ne xool leen ma man Balla Gaye keroog ba ñuy tasee ak tey bi ngeen ma gisee sama diggante man ak Tapha Tine mooy ëppatuma doole. xam nga gis nga en matière de travail ak liggéey ak ak ay spécialiste dafa am important. Hmm. ci moment bu ma ñëwee suñu première face à face boo xoolee. ñëpp ne nañ Tapha Tine il était pareil. Mm. donc man damay doog a commencé man nekk naa di liggéey lu yàgg te nit teguma bët boobu maa ngi suma ligne. Mm. mais pare guma di may def. donc ñu ñëw premier bi ñëpp nañu eh Balla Gaye Tapha Tine koy rey. Mm. parce que boobu kon li ma waxoon rek boobu ak dayo bi nu mu meloon et tout ça. boobu kenn ku nekk man maag moom da da doon dafa ma doon jéem a trompé ma ko doon jéem a dafa ñëw bañ ma xam moom li mu liggéey parce que ñun en France. boo fa nekkee dañ lay xamal nit ki doomu aadama lu mu war a comportement ak nu mu mel ak moom buy sport ak yow. parce que ñun dañuy toog sur la table après ñu waxtaan si biir kon ñun pare nañ ñu liggéey ma ñëw sol sama benn blouson seul mu jàpp ne kii moom xiiboon la tu vois li ngay gis suma kanam ak lu nekk suma yaram du benn moom tamit ma jàpp ne <laughs> dafay yokk poids noonu léegi ñu doon naxante di naxante léegi nag bon après on ñun spécialiste si ñu xool ko. on kii nii la mel melu nii mii la nii xam nañ ne day ay yére pour nga bañ xool forme bi ci lañ xamee nag ñu am nu ñu doxalee moo tax man leen Sénégalais yëpp dañ koo jël faveur jox ne ko bu jàppee Balla Gaye numéro 2 moo ko mën moo ko ëpp doole ba combat bu commencé ba léegi loolu ngay dégg moom ci boppam sax loolu la gëm te xam naa ne li mu gëm nii moom waaw moom ak ay mbokkam loolu lañ gëm moom loolu la gëm il se trompe nag le jour J incha allah. Hmm? non non non non non. mais mais. Ah, ah, ah. allah. moom mooy favori parce que moom lañ Sénégal moom lañ ko jox. waaw yéen spécialistes yi yéen ñi def chronique yéen yéen yéenay jox favori ku leen neex rek mais man xam nga suma sport laa gëm. tabax yaa ngi accusé suma doole laa gëm gëmuma leneen. mais lan nga jàpp pour te dire pour te dire pour te dire muy leer mm-hmm. man ci làmb ni ma ciy demee man man tafaati ni ma ciy demee sarax leen ndongo wala mu tib ak doole man noonu man noonu man noonu man noonu laay demee ci làmb yenn xam ngeen bu baax li ma leen wax sarax leen ndongo wala mu tib ak dooleem ci nii wala ca nale man noonu laay demee ci làmb la res lijjantiwuma ko mais Tapha ñun bi ñu xamee. lijjantiwuma kii dafa mën a bëre kii dafa mën a xeex man lijjantiwuma lool loolu man a man man Moustapha Tine. doo sama bopp ca terrain ba nañ tej terrain bi ku ne xam kan mooy xam mooy kan. man loolaa gëm gëm ma leneen. la res ci Balla la res ay coow ay détail tafaati néew ci détail man xaw ma loolu wax ju bari wax gauche droite non néew ci yooyu. dañ tëj terrain bi rek voilà non Mamadou man dama tiit damaa bëgg xam nga lu may laaj buur damaa bëgg ñu bàyyi damaa bëgg ñu bàyyi Tapha Tine ak Balla ñoom ñaar ñu waxtaan Balla gay Tapha Tine nee na day ñëw ci bis bi sarax ndongo Njaay mbaa mu tibb ak dooleem Tapha Tine ngi nii no en fait ñun ñun ay ndongo daar lañ bu yàgg maam ñun dañoo nekk ay ndongo daara yu ës xeexee fu ne dem syndicat hmm. dem àll ba gis ponkal bu ne ñu affronté ko c'est-à-dire sarax leen ndongo daale mu toola mu tubbee ak dooleem. waaw moom moo ko wax. est-ce que bu boobaa dina ko def. loolu lay ñëwee. làmbam yëpp. non moom moom da ngeen ko posé question moo c'est pas le moment mooy waxagum posé quinze question laay tontu est-ce que noonu lay ñëwee. léegi dayoo bëgg yéen ñaar ngeen waxtaan. waaw waxtaan leen rek laaj ko ndax moom sarax ndongo daal wala mu tibb ak dooleem ndax dina tibb le le 21. Tafa dafa jàpp ne Balla Gaye bu mu njëkkoon a gis la gis ba léegi Tafa comprendre gul de. waxal naa wax naa leen ko bu tey man la may def ak la ma bëgg a def. Hmm. <laughs> Balla Gaye mënuma koo tere def ci làmb. Balla Gaye keneen keneen keneen ku dul moom sax. pour mu leer quoi. détail yeeg wax ju bëri gi à doon bilif gëmuma ko quoi. actuellement je parlais avec Balla Gaye numéro 2 il parle pas à quelqu'un Maintenant, je parle avec toi. Toi, t'es qui? Je suis là, je suis la je suis là. Tu me connais ou bien tu me connais même pas? Non, tu te connais même pas. Te connais comme Balla Gaye, le lutteur. Voilà. La reste, tu me connais? <laughs> Moi, je l'affronte en Mbapat à Rennes encore. Le c'est de troisième fois. Tu me connais ou bien tu me connais pas encore une fois. on parle français ah tu me réponds en français. kii ay reetaan la mu def sox quoi bi de ay <laughs> ay bàppat ak yu gën xamul quoi non mais. <laughs> Tafa. Balla Gaye li mu bëgg a wax foofu jamais trois. <laughs> non Tafa Tafa nag wax dëgg yàlla dafa neex waaye xam ne moom li muy wax nii war na yàlla waxul dara billaahi waxul dara. Hmm. billaahi waxul dara. ok Balla Gaye dama la gis ngay waxe assurance. Mhm. te dafa am benn Balla bu ñu xàmme woon boo xamante ne nii su waxa su ma waxaan ak assurance ay supporters am non dañuy dem tëddi nelaw te Balla Gaye la ñu dégg nii muy wax ak assurance est-ce que moom mën na assurer ay supporters am ni la fa nekkoon ba tax mu daan waxee ak assurance moo fi ñëw ba tax mu war a jàkkaarloog Tafatine. Tafatine mii moo la gën a xam ne Balla pare na de <laughs> moom moo la gën a xam ne Balla Gaye pare na pare naa de. lan nga yëg wax loolu. ban Balla Gaye moo jàkkaarloog war a. Tapha di xaar yàlla motaluñu ñu ma. pare naa le 21 ban Balla Gaye ñëw. ah. le 21 ban Balla Gaye numéro 2 mooy ñëw arène nationale. dégg yàlla pare naa Balla gay 2 rek mooy ñëw. Hmm? mais am na lu ci am na lu ci dolli. waaw ah, surprise mun na ci am de. waaw <laughs> moom li mu foog amul de. mais man buur am na lu ma bëgg a laaj Tapha Tine. waaw mooy Tapha Tine. Tapha Tine daa toog 10 ans yum daanu ci làmb. daan ay ndaanaan comme ni mu ko waxee teg leen ndaanaanu lamb yëpp daan leen ban tafaatin la bawol war a xaar le 21 mu war a ñëw jàkkaarloog Balla Gaye numéro 2. ndax bawol gépp ñu ngi taxaw di xaar kàddu tafaatin mu am lu mu wax loo xam ne tey jii bawol kenn dootul des ñëpp ñëw topp ci ginnaawam. Ah, ban tafaatin mooy ñëw jàkkaarloog Balla Gaye numéro 2 mais Fadam damay dégg ñu ne euh, dëgg la bawol ci réew mi la bokk mais da nga fàtte man doomu Casamance da ngeen koy fàtte léeg-léeg man xaw wala da ngeen tiit si waa ji ba yàpp ne rek mooy réew. Casamance Sénégal la bokk. non dépassé naa foofu Casamance. doomu Casamance dama nekk doomu Soose nekk doomu Joola nekk doomu doomu Balanta. waaw yow Balla Gaye combat mais Balla Gaye ma 2 combat bi kon dugal nga ko ci dugal combat bi kon niveau bi yëg na. non non man doomu Casamance te bañkat la te suma waa dëkk ay bañkat lañ. lu leer laa la wax mais ban Balla Gaye kon dafa mel ni dafa mel ni Balla Gaye combat bi lu ko sénégalais yi soxla lu ko waa Casamance soxla lu ko àdduna soxla Balla Gaye moo leen ko gën a soxla. sama waa dëkk sax ñoo ko gën a soxla parce que li ñuy may dégg léeg ñu bëri naan doomu Bawol doomu Bawol Bawol maa ngi leen nuyu man Bawol li ma fa amee supporter bëri na mais comme Tapha Tine laay bëreel dama koy accepté ak doomu Bawol c'est normal kenn ku nekk sa gox nga koy représenté mais man doomu Casamance sax Modou. doomu Casamance laa faral man doomu Casamance la. Casamance fan lañ toll ci combat bi. yàlla baax na yàlla nañ ci yàlla yu bëgg jàmm. mais Tapha Tine sama question bëgg naa mu tontu ma ci loolu ndax Tapha Tine yaakaar naa ne mënoo toog 10 ans te daanoo ci làmb li Balla Gaye wax ne dama ne ko waa Bawol ñëpp ñu ngi waaj combat Tapha Tine Tapha Tine la ñuy xaar mu ne Fadam bu leen fàtte ne man doomi Casamance laa doomi Bayniko laa doomi Guinée Bissau laa ban Tapha Tine la ñu mën a xaar la 21 ak lan la Tapha Tine di waa Bawol. ak Tapha nan lay rassuré nan lay rassuré supporter am yëpp ci diggante le 21 ci diggante ak Balla Gaye numéro 2 yan kàddu lañ ciy xaar ci loolu. waaw mais di nuyuwaat waa Sénégal yëpp di wax na xam nga Sénégal benn la amul Joola Séeréer Tukulóor Baynunke Pël tout benn lañu quoi ba ci suñu mbokki lébu yi ñu dalal ñun ñëpp quoi benn la yëpp du noonu nga yow buur ak Fadam. ak Lamine ba ci waaj ne nekk Canada nu muy wax. parfois da ngeen naan Balla Gaye bu ñëwee cinquante pour cent soixante pour cent soixante dix pour cent mais ki nga fekk mu dépassé niveau boobu fan nga koy teg ak fan nga koy feetale koi hmm. c'est des question pour trois no ñun kay ñuy poser question. non mais de xam nga. de leen taxaw foofu. non mais ñun ñooy poser question. waaw d'accord mais. mais nag voilà Tapha revanche yi ma gis yëpp sàppali may ma loolu may ma loolu sàppali sàppali may ma loolu may ma loolu ngir yàlla may ma ma relance ci Tapha Tine dafa romb quatre-vingt pour cent ba romb cent pour cent kon su ma bëggee dégg Tapha li mu bëgg wax mooy dafa da raw Balla Gaye numéro deux ci niveau sport kon waru ñëw tudd ball Gaye dina tudd ci niveau sport xam nga man bu ma amul combat man wóor na ñoom ñii duñ duñ ma bàyyi may nelaw sax quoi chaque jour damay entraîner anytime anytime damay entraîner night and day ma am combat ak ma ñàkk am combat ci yem mais yéen seeni wax bu ngeen di wax danaan moom bu ñëwee soixante quarante loolu ngeen di wax quoi soixante dix pour cent loolu ngeen di wax waaw Balla Gaye boo amee soixante dix pour cent mën na jekk <laughs> ñun ñun ñun nekk à top yàgg na long time cent pour cent mais Tapha man dafa lu ma jaaxal revanche yi ma gis. personne mënuma déstabiliser ci yàlla rien de tout. da nga jàpp dañ lay déstabiliser xoolal lu mu laaj dama koy def bu ma neexee damay calme lu ma neex ma ajouté sama yoon. combat Balla Gaye Tapha Tine mën na jeexee kaaw bu jeexee kaaw ko mën a kaaw sa morom Balla Gaye ah jox nañ ko lépp man la sax damay dégg sëriñ si naan ndox tey rek maa ngi dégg ay wax yoo xamante ni c'est-à-dire gis nga Sénégal dafa am ñoo xam ne bu ñuy wax nañ ko xalaataat. Mhm. man du ma nekk góor yàlla góor yàlla di def loo xamante ne naan diw nay ci lii wala nangam man kan moom ma gën a rëy loxo ci làmb kan moom ma gën a diis loxo ci làmb foofu rek laa yem ñu li ñu lu ñu yaakaar amul de man bu ma nekkee vingt pour cent sax xajuma ci mbër ma la yéen fadam li ngeen wax dafa bëri soixante pour cent sax dafa bëri man 20 pour cent bu ma nekkee damay daan mbër ba jéggi. xajul Tapha Tine la de waxuñu loolu yeneen bëri de dama ne la bu ma nekkee lay daan ba jéggi la waxuma la ngeen naan ay 60 pour cent 100 pour cent loolu yéen seen wax la rek 100 pour cent 60 pour cent 20 pour cent 25 pour cent loolu seen wax la man nekkuma sax foo ngi may yóbbu yéen 60 pour cent. dépassé naa foofu. ngeen naan ma ay ay ay pour cent. Hmm. man may 2 2 milliards pour cent. nga ma la. la ilaha illallah 100 pour cent euh, euh, Tapha Tine Tapha Tine ni nga gisee Balla Gaye numéro 2 nii mu communiqué nii mooy Tapha Tine Balla bii ñëw ci sa kaw ngay dajal mooy Balla Gaye boo xam ne du arrière Tapha mooy Balla Gaye boo xam ne ni amul dara lu muy sóoraale ci xeexu Tapha Tine ak wala bëri Tapha Tine jot na ñu xam ban ban ban Tapha moo war a ñëw la 21. Fadam nootu kuro ko e. doo wóori. Fadam. le 21 soriwul. waaw bon. waaw nañ patiente rek loolu loolu yàggatul quoi. waaw mais Tapha Tine Bawol Tapha Tine Balla Gaye dafa am lu mu tudd léegi ci Casamance ak Guinée te Bawol Bawol yëpp dañuy toog essayé bokk na ci dernière communication yi Tapha Tine di communiquer. ci aspect boobu aspect mystique boobu xam naa ci nga bëgg a dugg. non non non ñëw ma ci mystique de ban Tapha Tine moo war a ñëw jëflanteeg bëgg a dégg dugguñ ci yooyu Balla Gaye daa tudd ay mbokkam te mbokki boobu Tapha mooy Bawol. ban bool bool li ñuy xaar mooy ban Tapha Tine moo war a ñëw jëflante ak Balla Gaye numéro 2 loolu la ñuy xaar. noo man fépp laa am ay mbokk quoi wax dëgg yàlla. kenn bu lay bokk ci waaw Casamance googu sa waay di wax samay mbokk ak ñëpp a nga rek laa fa jógee. vraiment wax dëgg yàlla ma leen di nuyu di nuyu waa Buyal waa si Ndiallo bi yëpp. voilà moo ngi noonu quoi ak képp kuy dund Casamance di wax na xam nga dëkk bi yëpp benn la quoi. Balla bu ko neexee day dugg Bawol ut ay lu ko neex voilà même man tam même soos quoi. bëgg naa leen poser question boo xam ne ñoom ñaar ñëpp ñoo koy bokk. dig diggante 2013 ak 2014 lan moo yokk ci Tapha Tine lan moo yokk ci Balla Gaye numéro 2 diggante 2013 2014 lan moo wàññeeku ci ñoom ñaar. Tapha Tine waaw. waaw sant yàlla man lam moom lu ma ci yàlla jagleel bon maa ngi sant yàlla quoi yàlla mu mooy suturaal maa ngi def sumay ndam di ñaan yàlla mu yokk ah. parce que nit xam nga da ngay di sant yàlla loolu la quoi. côté doole technique mental waaw expérience waaw stratégie. waxu expérience moom bu bu amatul moom dèjà moom jarutul sax di tudd ku ñu naan sa carrière li la dese bari naag bariwul moom <laughs> c'est pas l'appel quoi lépp dañuy sant yàlla quoi te xam ne ñu ngi ci line bu baax voilà continuer suñu entraînement voilà loolu la quoi. 2013 ak 2024 ban nga ci ëpp doole. ñaari combat yi ban nga ci ëpp doole. yëpp ah, liggéey la ah, liggéey la ah. dañuy liggéey rek combat bu ñu am xam na nañ ñu koy aborder loolu la du leneen mais doole moom yàlla rek moo ko yor quoi. li ma ko bëgg a laaj ci loolu ba tey mooy 2013 est que am na loo xamante ni bi mu demee ba toog xoolaat après combat bi dafa gis ni lii manqué na ci man te ci combat bi moom mu jàpp ni mat na ci moom mate na ci moom sëkk ci 2013 ak 2024 bi. Mm-hmm. rien regretté aw ma dara lu ma ci regretté lu waroon a am la am na après dama ci sant yàlla voilà. ñëw toppaat toppaat su ma laaj. mën naa benn question Tafa. Euh, xaara buur xaara buur Lamine mi ngi fa am solo te wax dëgg yàlla bugguma ñu couper loolu ndax Balla Gaye il faut mu tontu ci loolu. Mm-hmm. ba acca Balla Balla fi Lamine gi laaj Tafa 2013 ak léegi lan nga gis ni yokku na ci yow 2013 ak léegi lan nga gis ni wàññeeku na ci yow. waaw. sant yàlla nag li ma manqué parce que doomu aadama bu nekk buy dox rek di nga dox dox dox dem ci yàgg rek am lu la manqué. mooy hmm. sama papa manqué na ma. Hmm. sama turandoo Balla Gaye manqué na ma. ci hmm. làmb ndax ñoom laa doon àndal ci làmb loolu bokku na ci lu manqué ma koy sant yàlla suñu borom. parce que xulaax wala kaaram ron parce que doomu aadama bu nekk noonu lay dundee. ñooñ daal ñoo manqué la res dara loolu sant yàlla suñu borom. waaw loolu la. doole ji fi nekkoon 2013 moo fi ne ba léegi. non dara mosu fee jóg Modou mais gën a pare am na. gën a pare am na. waaw te bii da ngaa gën a pare. waaw wax dëgg yàlla nag. Ah. dara mosu fee jóg waaye gën a pare am na de. Ah, buur yeggalil. jërëjëf question bi may laaj ci Tapha laa njëkkee balaa ma ñëw ci Balla Gaye de dañu gis ne souvent revanche lu raar la ci làmb boo jëlee Eumeu Sène daan na Modou Lo deux fois. boo jëlee Yaxya yëkk Yékini daan na Tyson trois fois daan na Bombardier trois fois Modou Lô daan na Eumeu seen deux fois Eumeu seen daan na Balla Gaye deux deux fois pour nga gis un un waaw un un ci revanche yu làmb lu très rare la ci milieu sportif dafa buur waaw a fi nekk di compter rek mais man pour man mosuñu daje quoi franchement pour yéen mosu leen bëri mooy suma mooy suma premier combat man man li ma jàpp yéen nag bu leen neexee ngeen nekk fii calciner di xool ay vidéo mais man I don't believe. ak fi nga jaar ak moom 2013 nga ne ah, fàtte nga ni déggoo li ma la mel na ni mosuma bëri ak Balla Gaye 2 suma live. tout court. Hmm. le 21 bientôt. yàggatul. Balla Gaye. Eh, buur mayel Balla buur mayel Balla Balla Tapha li mu wax nii. waa moom Tapha ma xam nga. li muy jàpp ni moo koy tromper pour toujours moo koy xamal loolu. ah ñëwal. parce que mënuñu bëre mbapat nanguwoon nangu xam nga léeg sama doom yi dañuy toog ma posé ma ma ay samay doom lañ ñu posé ma question ne ma papa mais yow nangoo nekk sportif moom mu laaj la kii dalaa daan nga wax ne dalaa daan moom la moo tax boo ko waxee yaa ko daan doy na waaw. say doom ñoo la koy laaj. waaw ma ne ko mais xëy na peut-être daan bi nag neexul mais li ma koy li ma koy li ma koy li ma koy wax rek mooy. bëri nañu mbapat wax dëgg yàlla yàllaa ma tiim ma daan ko te war na ko mën a nangu bëri nañu arène aussi tamit ma daan ko war na ko mën a nangu parce que yàllaa dogal ma daan ko maa ngi ñaan yàlla troisième fois bi nga xamante ne maa ngi jëflanteeg moom yàlla ma ci yàlla may ndam te incha allah bu neexee yàlla yàlla na ma ci may ndam. mais yow noo déggee noo déggee li mu wax ni mi ngi jàpp ni mi ngi soog a bëree ak yow est-ce que nekkul une décision. noo munu nekk. non non c'est impossible. c'est impossible non c'est euh, loi des sports rek xam nga nit boo dajeeg moom àdduna muy ñi nga xamante ne yàgg nañ ci daan làmb mos nañ gis ne bëri ngeen ñi seetaan bapat mos nañ gis ne bëri ngeen bapat. Hmm. xam nañ ne bii mooy troisième fois bi. Tafaatine mën ko jàpp ci xelam mais. ko jàpp xelam ne moom c'est la première fois ñu bëri Tapha Tine li buur di wax foofu ba tey man li ma la koy waxee mooy combattant boo gis dafa am palmarès te yow ci hmm. sa palmarès ci sa palmarès arène dafa am Balla gay daan la benn yoon te dafa raar ci arène te yaa ngi jël sa revanche ci Balla Gaye qu'est-ce qu'on ci revanche boobu Tapha. Modou mooy li ma la wax rek euh, xam nga sa waay bu naan man sportif laa moom damay jaaxal bu ma juumul ci ci sa plateau la toogoon yow ak sa papa père Bécaye moom bi mu naan sama combat contre Amath Sène Amath Sène moo dóor moo bëre moo daanu. Mm-hmm. or que. moo tax boppam ba ma ba ma ba ma répondre ko ma ton ko ma ne ko yow sa xol leerul boo waxee loolu c'est pas sportif te man Balla man fu may waxee damay wax ci yow lu nice. seetoon jantal non déglu ma ne jantal men nga mais boo ne amat boo déglu ma rek waa waa écoute moi. mu ne Bombardier décision médicale la. waaw yooyu Boy Niang décision médicale la. mais c'est moo bëree moo xeex la la la 21 la 20 la laa wax. bu ma sañoon laa wax du ma ko laal mu xool fu mu tëdd ñu sama loxo ma dem. waxuma la boog ki ma fexanteer ba loxoom dam wala ma dóor ko lam di jeefa comprendre nga. mais moom moom moom moom attends rek déglu ma rek dama lay dama lay wax xam nga sportif. ci cœur la quoi xol. da ngay nangu man dama nangu fu ne del maa daan mais dafa mel ni man laa la wax de mosuma bëre ak Balla. ngir ci lii ma jëm pour mu leer. ndax décision boo jël wax la yee. mais moom moom laa la wax moom moom moom bu waxee ne Amat seen moo dóor. moo bëre moo daan loolu du xol bu leer quoi. nit da koy waxal. li nekk pourtant pourtant pourtant pourtant noonu la demee de xëy na dara naqar rek mais xëy na dara naqar rek pourtant noonu la mais maa ngi jégalu ci loolu. non xam nga amul amul non amul problème amul problème amul problème parce que tout le temps da ngay répété dangay ngay répété kii ci décision médicale nga ko daan kii ci décision médicale mais c'est de lutte. on dit yow duma la wax lu la neex Tafa on dit vrai yow boo yow mu fu nekk nii mënu goo dégg dara lu la neex sama diggante yow. ma ci wax comme que jàkkaarloo nag yow wax la ba nga dégg ko c'est fini. dootuma ci wax wallahi al asim mais loolu moo am mais comme neexu la y a pas de maintenant mais mënoo dégg nag lu la neex actuellement mënoo dégg lu la neex on dit vrai kon man maa ngi xaar ci yow ne du ma dégg lu ma neex mais yow xam naa ne borom xol bu rafet nga yow xam nga ne man mii. borom xol bu rafet laa mais ci làmb la nekk doo dégg la neex lu lay de du ma du sax li ma bëgg a def mais yow mënoo dégg lu la neex pourtant <laughs> on dit frère. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est ça. question bi ma yor Mamadou Balla Gaye 2 laa koy laaj ah keroog dañu taxaw Balla Gaye wax wax bu garaaw boo xam ne dafa jéggi tafaatin sax am ñeneen ñu mu visé Balla Gaye nee na dama bëgg teg sama mbagg fii ñaari couronne roi des arènes. teg sama mbagg bi couronne empereur des arènes ñu jàpp ni nag kon way wi way wi am na daaneel jéggi na moom Tapha jàpp na ni daan na ko ba bëgg dugg ci jàkkee yaa oustaz est-ce que noonu la demee. je pense que ne maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma dam parce que Tapha lay bëreel li ma bëgg rek ak li may ñaan yàlla sañ naa ko wax plus important mooy maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma ndam ci kaw Tapha Tine boobaa dama ne. ampleur bi dafay nekk roi des arènes bi mos a nekk c'est ça la vérité maintenant nag non ma actuellement buur maa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may ndam ci kaw Tapha moom laa am. jàkkee yaa oustaz du gàtt fa. wala loolay question bi de question bu leer laay laaj parce que yaa ma ni ñaari couronne roi laay takk fii sama épaule. takk fii sama épaule bi couronne empereur kon bala Gaye daan na Tapha ba pare te bu ko daanee dafa bëgg bërewaat ak Modou Lo su Modou Lo amee ndam ci Siteu mu nekkat roi des arènes loolu lay tekki c'est la définition Lamine du ma saytaane nag damay laaj. loolu du question on dit vrai loolu du question ñun ñu ngi war a bëre man ak Tapha pour muy leer waxuma turu kenn dugal ma turu kenn boo ko ci dugalee nag yow yaa ko ci dugal. ak kum ti doon waaw même ma tuuti si te plaît ba nga yor dama laa ko dama la déglu Tapha Tine laay am ak combat daanaguma ko maa ngi ñaan yàlla suñu borom mais man dam la 21 waxaguma ne daan naa ko ba pare loolu déggoo ko ci man waaye maa ngi ñaan yàlla yàlla mais man dam la 21 couleur ampleur rek ampleur bi kenn duñu ko yàqal ampleur la ñuy wax waxuñu ci leneen actuellement. mais buur. Eh, waaw waaw waaw non ampleur moo fi nekk nañu wax ci ampleur rek garaw waaw hmm. ah, Tapha Tine maa ngi ñaan yàlla yàlla dafa am foo jóge waa géej waaye ñu bëri mer bool bool naan Balla gay 2 gaynde gu màgget la man loolu sax moom ma ci gën a naqari quoi parce que boo wanee bala Gaye 2 naan gaynde gu màgget la bala gay 2 jóge ci diggante ak booy booy ñoo am fa défaite bu ko naqari naqari jàpp ni dafa ameel waa géej waay te Tapha Tine mi ma gis Balla Gaye parewul pour nga dox ci kawam parewu ko sax. waaw mais xam nga yoon nag yow dangay dangay dugg ba bugg a dugg ca stratégie ñaari mbër yi pour nekkatoo journaliste pièce ngay teg xam nga laay xamal waa géej waaye xam nañ may kan et puis l'important mooy lan liggéey naa lu muy liggéey maa ngi ñaan yàlla yàlla na mu yàlla may ndam macha man li ma bëgg fi mu toll ñu xam naa fa la ñuy jeexalee waxtaan wi lamin kombaa bala gay ak Tapha dafa am fu làmb toll. te ñoom ñaar dafa am foo xamante ne làmb dafa tolloo ñoom ñaar ñu yóbbu ko fa ci seen combat bu 2013 ba. te fii nii dafa am fu làmb toll ñoom ñaar seen combat tolluwaay bi fan la war a mën a yóbbu làmb Tapha bu tontoo bala gay tontu. Tapha Tine seen combat fan la mën a yóbbu làmb. non fi mu mën a yóbbu làmb bëri na exemple tey làmb ji ku ne xam na ne y' a deux cent trois cent ci ginnaaw y' a problème mais actuellement mu ngi teguwaat ci yoon bu bu leer quoi ñu ñaan yàlla mu continuer sponsor yi gën a ñëw voilà état bi gën ci teg loxoom aussi voilà loolu la quoi comme comme comme ñun ay mbër yu mag lañ lay comme ni ñu ko waxee suñu yenn grand yi dem nañu ñun ñoo mën a rafetal xam nga di def communication bu jaar yoon voilà parce que itam xam mbër mi supporters yi dañ koy déglu amateurs yi dañ koy déglu tey yow mbër mi boo doyee waar di wax ay wax yu la rek voilà supporters yi dañuy bëgg a ñëw def même soos quoi. te xam nga sponsor yi ñu sol nii ku ci mel ni Cobra ay Adja bi bala sol voilà. dañu ñaan mu yokku quoi Sador waa mu góog dañu ñaan yàlla mu yokku. bon dara ñu bañ a gis dara violence yoo xam ne dañuy réclé waat ci làmb ji quoi ba làmb ji gën a baissé waat quoi mais actuellement. voilà sant yàlla quoi. franchement. bala tolluwaayu combat beeg fi. waaw tolluwaayu combat bi mooy que xam nga làmb moom dañ ñu coow la. Hmm. te coow mooy làmb aussi bu ñu xoolee Tapha Tine Balla Gaye 2013 nii la meloon sax wala mu gën. mu raw ko kay mu raw ko tu vois. ànd hmm. nañ def lu ne ànd nañ scientifique lu nekk. Hmm. plus portant rek mooy que ñun ñëpp euh, ay adversaire la ñu làmb moo ñu boole mais kenn ku nekk bu toogee temps bu dul làmb xam nga ne sa adversaire nit ku baax la nit ku mm. gentil ci mm. tu mais làmb aussi bu ñu fàtte ne luy neexal lañ koy def ñi seetaan sax wala kilifa yi sax dem nañ ba xam ne kii melul nii parce que làmb wala signature moo koy def loolu bu passé passé na borom xol bu rafet la mm. tu vois donc euh, man daal maa ngi ñaan maa ngi koy ñaanal jàmm di ñaanal sama bopp jàmm di ñaan yàlla yàlla may man dam looleen di wax ci taxawaayu alburaax parce que saison bii ñu nekk ak bi ñu génn. Mm-hmm. alburaax liggéey ne ci lu tax tey làmb ñu déggaat ko. waaw taxawaayu alburaax. waa xam nga tey alburaax il a bien travaillé. Mm-hmm. boo seetee combat bii nga xamante ne yëpp tëgg nañ ko. Mm-hmm. ay combat yu mag la. fay ñu kenn ay huit cent mille wala sept ñii bëri laa wax ñi naan mbëri ndaw lañ. waaw mais man du ma ne mbëri ndaw parce que ñu ñëpp ay mbër lañ. xaalis bu yor taal lañ la fay nga ñëw bëri donc ba tax na daal maa ngi leen di ñaanal jàmm ku ci mel ni Abdou Aziz maa ngi koy ñaanal jàmm bàyyi ma jigéen maa ngi koy ñaanal jàmm. parce que li ñuy def ñu ngi ñu ngi ñu ngi dimbali képp ki nga xamante ne yaa ngi nekk jeune nekk lutteur yaa ngi koy dimbali. Hmm. ak ñeneen ñeneen tey tey euh, tey lu mu lu mu créé ci ay emplois bëri na. Hmm. bàyyi lu mu créé ci emplois bëri na. mu créé ci emplois bëri na. Hmm. ba tax na daal toute façon daal vraiment kontaan naa trop trop trop ci émission bi. Mhm. waaw di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. Mhm. yàlla may ñu jàmm. yàlla defal ñëpp jàmm. Mhm. Euh, may wax nag samay samay may wax samay supporter waaw Lamine. bëggoon na maa xam Balla ñan lay contactal est-ce que am na sparring partenaire yoo xamante ne am nañ doole comme tafaatin Tine yan adversaire la ma yoo xamante ne ñi mu ngi jàppante ak ñoom parce que. comment ça général day bëre comme ni mu ko waxee sànq. Mm-hmm, mm-hmm. comment ça comment ça Géant. c' est c' est pas l' appel plus important le mental fort technicité vivacité résistance rapidité plus important c' est ça. Eh. doole yaa ko liggéey pour am ko. mais kenn du la ko may. mais li mu wax dafa garaaw su may partenaire. waaw ay partenaire non c' est pas le moment mu koy expliquer. ok. Moi, je travaille en discrètement. Ah. C'est Mais am nga ay partenaire. Non, il y a beaucoup de choses. am ay sanctions am dafay dal ci kaw mbër mi est-ce que combat Balla gay de Tapha Tine njortu nañu ni mën na jeex ci heure boobu exactement. ne lamb ñu léegi eh, caaxaan rek dañuy caaxaan rek. ñoom non oui côté boobu buñ ko buñ ko ñu ko ay sanctions financières. ci kan ay sanctions dafay hmm. de Tapha njort nañu ne mën na jeex ci heure boobu exactement. les deux lutteurs waaw moom moom la ñu ñaan yàlla kon réglement moo ñu tënk dans la vie lépp réglement moo ko tënk. mais galaaj yi ngeen xëppoon il faut il faut ñu respecter Moodu règlement. waaw parce que xam nga lu tax. mënoo mënoo mënoo organiser làmb bu mel noonu dëgg la bien vrai que nag làmb métti na ñëpp xam nañu ak mbëri temps yi ñu war a bëri. mais aussi tamit ñuy ñuy ñuy sóoraale diaspora bi dañuy bëgg seetaan làmb. Mm. du Sénégal rek quoi. Mm. parce que ñii dañuy rawante deux heures de temps ñii huit heures de temps léegi heure yi ñu benn ak mbooloo mi nga xamante ni aussi tamit mooy ñëw esat dañ leen war a suuraale kenn ku nekk bu paree Modou dafa war ñibbi ci këram loolu CNG def dama ci kontaan mais na mbëri aussi tamit respecté loi bi nekk fa bañ faa nekk di xëpp di xëpp di xëpp di xëpp na ñëpp teel a ñëw teel a ñëw teel a bëggal amateur yi yàlla may ñu ndam incha allah ñu ñibbi ñii bu ñu paree nag ñu mën a commenter ñii di naan ataaya ñii di ji ñii lekk reer bu neex c'est ça c'est très important. Tapha Tine na tontu ci loolu. Ah, loolu Tapha par mu jeex. bon lu baax la parce que booy xool bi ñu doon seetaan lambu eh, Demba Diop wala fii avant timis mm-hmm. da doon naa ne loolu lañ indiwaat rek. Mm-hmm. xam nga le reste mooy xam nga comme disons la boo xam ne nii ci état la jógee xam nga. dañ koy nangu ah foofu moom amul dara lu ñu fay wax quoi wax dëgg yàlla lu du respecté xam nga règlement bi waaw comme li ñuy wax rek teel a duggi marché teel a taal teel a pare quoi man noonu laa ko jàppee hmm. voilà loolu la quoi franchement. jërëjëf Mamadou. jërëjëf bu baax mais Lamine Lamine loo loo bëgg a laajaat benn kàddu moo a laaj Balla Gaye numéro 2 balaa ñoo dem ak Tapha Tine côté open press yi ndax sénégalais dañ koy xaar sénégalais yi dañ koy xaar Balla Gaye numéro 2 gis nañ ne booy def open press Géejawaay ak banlieue bi ñëpp ay daje Casamance ak ñëpp ay daje. Mhm. Tapha Tine bu koy def askanu Bawol ak fukki pàkk yi ñaar ñëpp ay génn. Mhm. Ah, daje daje Balla Gaye sa ëpp jour open de Sénégal yaa ngi koy xaar ndax gars yi ñu ngi naan Balla Gaye de kañ la def open presse am ban jour lay doon. waaw euh, moment bi xaw ma xëy na promoteur bi moom moo ñuy wax jour bi ñuy def ak buñ dul def bu ñu waxee ni bis nangam ngeen koy ñu koy def ah mais sans départ xam nga man règlement moomu mais ñu ngi dégg na jeudi sa bopp jeudi. Ah, ko yaa ma ko wax. waaw ñu mais maa ngi gërëm aussi tamit suñu papa bi ñu tuddee làmb ji. waaw ndax c'est très important Pape Rajo Ibrahima Dia. waaw ndax aussi tamit fukki penc yeeg ñaar yëpp. maa ngi leen woo ci bis bi mhm. su ma mbokku lébu yi ñu taxaw ma jàppale ma yàlla non même même. Eh, eh Lamine Lamine Balla Gaye du sa morom de. Lamine bàyyi ma ma gërëm. parce que ak buur war nañoo nuyu ji El Hadj Ibrahima waaw war xam nga loolu. war nañ ko nuyu ji. parce que loolu mhm. ñaari yi ba léegi insisté ci loolu ndax euh, waa juróom bu góor dégg naa moo fu njëkk taxawal mbër fay ko million ko koy alaaji Basiru Jaañ Maram Jóob taalibi Sidi Mouhamadou Mansour ba tax na ñu ngi koy ñaanal jàmm papa sa bis bi yàlla na doon bis bu gën a rafet bi nga am sa àdduna ku bi waaw ku ci fu drapeau bi de drapeau incha allah Casamance ak Géejawaay la jëm <laughs> Tapha Tapha Tine looy ci pare bi ak dégg nga li ci Balla wax ci dara pare gu ma sax ngeen may coupé. yow laaj après am na lu ma lay laaj. waaw di sant euh, grand Serigne Ibrahima Diagne. Mm-hmm. Marème mbokki lébu yëpp. di wax ne wax dëgg yàlla ñu ñu dalal fii tey ñu ngi fii sonu Medina bi île de île de serpent. Mm-hmm. kër Eric Fabre. Mm-hmm. voilà koy ñaanal ak salaam moom. grand Serigne ak. Euh, njabootam mais terrain. waaw. ma ne faaw ñu dem foofu terrain. fan yii. ci grand Serigne mu may leen terrain ndax nag mooy borom Dakar. waaw non c'est normal c'est normal. waaw surtout ma pot la. waaw loolu day am surtout jàll la. non c'est normal la comme comme ñoom ñoo dalal ñëpp. bu la ñu ci fàttali mag buur. joolaay. loolu c'est normal quoi vraiment. vraiment. di gërëm sama bon di sant aussi di sant aussi Akim. Mhm. Ah, xam nga Akel. Mhm. barki dem ñëw dem ñëw na suma. walaay Akim Akel pati seen. dabati ak enveloppe. ak Adja. waaw ak Adja. walaay ndeysaan. di ko gërëm ak personnel bi liggéey. Euh, pati seen yëpp euh, di gërëm Adja aussi. walaay ndeysaan voilà suma partenaire rek mhm. rek ci mbale Medina bi gis nga. moom la sol ak aussi sponsor bi ma sol muy Cobra. wallaay voilà ñu ngi leen di gërëm daal di gërëm sponsor yi ñu àndal yëpp. Sador. voilà mhm. Adja. Cobra mhm. ak. Euh, sponsor yi accompagné yëpp quoi mhm. original. comme li may wax ci Assis aussi dama koy dama dama koy wax du ma nangu Balla Gaye mi ëppale ma ci Assis. parce que wax dëgg yàlla nit boo waxul dëgg da ngay wax fen quoi. te mm. franchement suma combat yi passé yëpp day yëkkati xaalisam di ma ko jox. ndawal lu guddi la Abdoul Aziz. yëkkati ceeb ak diwlin di ma ko jox. mais bala mm-hmm. bu la neexee ceeb nga dem leen toggi du problème problème newu ci. na ko andi. na wala otoom indi ma ko sama kër problème newu ci ah. yàqul dara ñu togg ba na fekk ah, loolu moom la ma koy rafetlu. na ñëw incha allah dégg nga ah. buur na ñëw na kenn di bëri ak. Euh, Mamadou Balla Gaye de man mais buur man hmm. sama regroupement day yaatu man damay togg Refane. damay hmm. togg Ouest Foire damay teg damay togg ker Ndiaye Lo. damay togu Medina. Hmm. bala sartel ceeb bi mu ñëw dégg nga. waaw euh, ah, mais mais buur buur. tabatil ñeenti tabatil ñeenti euh, regroupement lay def. mais bala Gaye yëpp xam nañ ne géejewaay lay ngemboo. cinq cinq regroupement mais mën nañoo xam nga sàppali sàppali Balla Gaye daal laal fu nooy. ndax waram jaay dafa dafa dafa nekk war mbaru tuddum fi muy taxee ngemb. wax euh, wax fi muy taxee yow Fara. léegi daal question bi ma la bëgg a laaj. yoon. ah sàppali. Balla Gaye dégg dégg naa ah? sa staff. Mm-hmm. dégg naa staff bi ñi la jege da sax am ñoo écarté ba dégg naa Ketchup sax ci la bokk ak yooyu. non xam nga xam nga làmb dafay doxe rek xam nga classe keccop bi hmm. dama leen leen boo leen ma bëggee dimbali ñu waxtaanee ko hmm. ñu waxtaanee ko li mu ëmb daa bëri duma hmm. du xuloog moom ko suma frère la du ma ci xuloog kenn parce que mooy waay lañ maa ngi gërëm aussi tamit kon li mu wax rek maa ngi koy rafetlu ci li nga xamante ne wax na ko ci Abdoul Aziz Aly Ndiaye nga am sa nit ba ñëpp bëgg ko bokk yow. Mm. loolu plaisir la. Mm. kon kooku exemple la ci réew mi exemple la ci àdduna. ba nga xamante ne ñëpp kon naw ñëpp ko respecté. dëgg la dëgg grand frère. loo baax doyul loo yiw doyul. Mm. loo gën a def lu baax doyul Abdou Aziz maa ngi lay ñaanal jàmm foo toll. gudd fan laa lay ñaanal ak wér gu yaram mënatuma la ñaanal leen. du lu lay ci cadre àdduna amul lenn lu lu la ñaanal yàlla gudd fan. loo bëgg yàlla na ko si yàlla defal maa ngi ñaanal sama mbokk bambara yi bu baax ñu jàppale ma taxaw ma. waaw sama mbokk bambara yi maa ngi taxaw. waaw bàyyiwuma kenn ma limit naa jum. ba tax na daal maa ngi gërëmaat rek staff bi a encadrement bi. les bambara yi di gërëm aussi tamit euh, waa Patisel. Mm-hmm. ndax teraanga ñu may defal démb. buur dégg mos na fa dara teegu ma ko. ñoom ñëpp mos nañu. tudd nga sama kër de. yaa ngi dégg Patisel maa ngi leen di leen gërëm. maa ngi aussi tamit suma papa euh, As. Ndiaye As Ndaw. sànnee naram faxa. di gërëm aussi kenn du moom. kër <laughs> As Ndaw ci géwél léegi avancé na géwél la avancé tuubal naa bu baax a baax ndax gis nga démb. <laughs> teranga bu mu defal tabaati noonu la ma defal. macha allah kon donc vraiment. ngi koy ñaanal yàlla ndax yàgg nañu sëkk ak man teraanga. dëgg la mhm. donc daal dëkk bi ñu ñëpp benn lañu. laay dëgg la di gërëm ñi si tamit ñu jàppale Balla Gaye 2 numéro 2 yëpp gis naa taxawaay bi gis naa esaf yi damay gën a waxaat waa Géejawaay. Mhm. pano gis naa ko. Mhm. lu mu bëri xeeb naa ko. corosement bu ne dama faa bëgg a gis lu bëree bëri bëri. waaw dama bëgg a gis lu bëree bëri di gërëm nen taal bu baax a baax. nee na Fatoumata Tall. suma xarit madame Mbaye la. di gërëm aussi tamit Alioune Sall. borom géejawaay. borom géejawaay di gërëm Ahmed Aydara. monsieur le maire. ndax ay nit yu baax lañu. ak ñun ñu sekk teraanga laa sekk teraanga nag xam nga ñun dañuy wax rek teraanga ñu yaakaar ne xaalis sa Adama Ngom mi ngi waajal. Adama Ngom mu ñu waajal suma gërëm. di ko gërëm. Uh-huh. ah ak Père Diaw. Mm-hmm. Père Diaw maa ngi lay ñaanal jàmm. kooku suñu père la. kooku moom mooy seen. mooy kooku moom mooy mooy mooy xoolu géejuwaay. mooy hmm. hmm. donc ba tax na daal vraiment ñu ngi koy ñaanal jàmm. Hmm. ñaanal waa géejuwaay yëpp jàmm. di leen na yàlla jàmm yal na Sénégal am jàmm di gërëm Malick Gakou bu baax a baax. allah waaw macha allah. jërëjëf jërëjëf Tafa Tafa yaakaar naa wax na kàddu gu wala. waaw Modou maa ngi lay maa ngi lay maa aussi. Derek Favre aussi Rick dalal nañu dalal bu neex sax bu neex. kii day kenn comme comme ni ma koy waxee quoi. salut Bala tey tey le lion blanc. kii un grand combat. Ah, ah. Ah. les deux coachs les deux coachs. je présente mon ami mon coach. te di salut Père tout

<laughs> Eh ben écoute, je te remercie. Ça va être un beau combat. Je pense que c'est le, le, peuple sénégalais et tous les amateurs de, de, lutte qui vont voir un très très beau combat. Et que je le dis tout le temps, que le meilleur gagne. C'est deux beaux combattants. Ils ont euh, fait beaucoup de choses dans, les arènes. Et euh, mhm. il faut montrer beaucoup de, de, dignité et montrer aux jeunes lutteurs que pour y arriver, il faut beaucoup de travail, il faut de la persévérance, mhm. technique et que euh, rien c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail et d'abnégation. Donc euh, je vous remercie et je serai présent le 21 juillet avec vous tous, vous tous, et que le meilleur gagne. Merci. beaucoup, Eric Favre. Je suis trop content de toi. Merci beaucoup. Il a fait tout pour Tavatine. Il était beaucoup de soutenir. Donc, franchement, parle. Merci beaucoup. Machallah. Euh, euh, waaw di remercier euh, euh, euh, di remercier coach aussi Moussa Fall Moussa Fall mhm. voilà comme niñ koy waxee ah di sant ñoom Bada Dione waa mhm. marché Sandaga xam nga mhm. waa marché Tilène Colobane <coughs> bawol bawol yëpp fu ñu mën a nekk fukki pak yeeg ñaar fu ñu mën a nekk di nuyu aussi sama mbokki séeréer yi bépp séeréer buy wax kàmmee moo xam séeréer ndut la saafen ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen woo ci làmb ji leen wax ne Tapha Tine am na combat nañ ma ñaanal yàlla defal mu ndam incha allahu rabi. di sant aussi Amath Dieye Modou Fall. macha allah. Daouda Faye parking. waaw. Modou Khoule. Mm-hmm. ñoom Bamba Dieng international. waaw suma boy la moo koy ñaanal aussi. Mm-hmm. Kande waaw Kande. madame Kabi Serena Mohamed Titi waaw Ibrahima Diagne waaw voilà jërëjëf Mamadou defe naa ne bu doon wasaana bàyyi bàyyi mbir gërëm maa ngi gërëm waa Fatick maa ngi gërëm waa Joal bu baax a baax a baax jërëjëf bu baax alaaji buur Lamine yaakaar naa ça a a été un plaisir ah, ñu jàkkaarloo ñu toog def vraiment lu am solo kontaan nañ ci yéen xam naa dañu leen di ngeen tàggatoo ñun ñu après ñun ñu tàggatoo. waa di gërëm waa Medina bi yëpp di leen woo Fass Gueule Tapée xam nga. Mm. Fass bi yëpp xam nga di leen woo ci bés bi di leen wax ne Tapha Tine amatina combat. Mm-hmm. départ bi réussite doon comme ni ñu ko waxee léegi nii. Mm-hmm. open press bi bon ñu ngi ko jàpp alxames incha allahu rabi. waaw staff bi waxtaan dañu alxames lañu fas ko def ñu ngi ciy woo ku ci ah. ñëw rek ku ci dégg sa tur fii incha allah rabi bu open press be di nga dégg sa tur incha allah koy defee Tafa fan nga koy defee di gërëm ñëpp non loolu après la mais staff bi waxtaan nañu as alxames lañu ko jàpp incha allah ok ok Balla Gaye doy yow kon doole so yow <laughs> promoteur bi press ok kon ragal naa ni ci marché waaw amul six waaw maa si Sam amul six amul mais li ñu jot li jot ni information yi jot man damaa bëgg bëgg kuy télévision damaa bëgg ku pare pour dem ci open press bi nga yor ñi ngay pare ñaari caméra te xam ne ñaari open press mooy am ci benn bés lu musul am alburax innové na ko en direct lay doon ci télévision yi mu nekkal partenaire Lamine waaw mais loolu mën na nekk loolu mën na nekk mais am na ñoo xamante ne mënuñu ko ñaari mbër ñu woon a bokk ñaari mbër yi pour man waruñu woon bokk même jour def ci open press. mais Lamine ñaa Lamine na seen affiche def direct duplex man ma def direct duplex. dañuy eh, dañuy dañuy wane waale suñu bopp ma wanaale li ma leen mën a ci matériel lala. non loolu du ko eh, dugg foofu. waaw eh, Mamadou waaw Mamadou ñu ngi ñu ngi kontaan ah, comme ni ñu ni ñu tàmbalee woon rek ah. affaire bi euh, eh, affaire bi Balla Gaye la mais man ak yéen la waa jërëjëf Mamadou ça a plaisir ah. di gërëm waa di gërëm di gërëm borom kër gi. Euh, Éric Favre le lion blanc comme je l'appelle ci accueil bi vraiment ñëw nañu xam nga nit boo ko ubbilee sa kër ubbil ko sa xol daf koy xam may gërëm nag le grand parrain Pape Ibrahima Diagne moom El Hadj basiru Diagne Marème. dama ko wax ne que sëtu jal nga sëtu mapot nga. wallaay ndeysaan boo xewlee danañu ñëw. te man alaaji Sàmbale ak alaaji Mamadou Mbaye Poobar ak alaaji Lamine Seck jinjeer bëgg nañ mm-hmm. fa ñëw ànd ak ñaari champion yi. te boo amee ay gën boo boo amee ay gën yu géwél ak ànd ak ñaari géer yu tuubal <laughs> Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou ñuy ñaanal sama way sama wayjur sama mm-hmm. xarit Ahmadou ibn Ousmane Cheikh Ahmadou Kara Mbacké mo ni borom diwaanu sama fayi di sama xarit di kenn sama rakk ju baax ji ma àndal Mohamed ak sama yaay ajaratu Ndey Fëri Njaay di gërëm nag grand cuun papa cuun bu tafa cuun grand non non non grand bi dafa am benn esprit d'ouverture sportive ak grand élage xam nga champion kenn ko dara ay wax dañ koy dara ay jëf te lii wane na ni xale yi bu ñu bëggee dara il faut être entouré que des gens ambitieux. mais mais buur buur très content la. buur buur maa ngi nuyu koo xam ne nii. bu géejewaay baaxee bu géejewaay baaxee mbaa mu jaar yoon. xaaral rek damay coow damay coow eh, loolu liiru jaan la géejawaay su baaxee bu jaar yoon géejawaay baaxee liiru bu baaxee mbaa mu jaar yoon du kenn du président la Diop yaakaar naa ne xamul ku mu ni la Diop kon dëkk yi baax na maa ngi gis kenn du moom eh, Lamine Lamine dama nga tëj mais nga tëj foofu mm. mais mais mais mais nga wax ci open press bi war am ci ñaari bis yi nga wax yow gis-gis bi nga ci am bala bala jeudi dafa jeudi yow loo ci xalaat non man moom awma ci problème pour pour pour couvrir ñaar yëpp mais su ma sañoon daal kii day def mercredi kii def jeudi ah, waaw su ma mais comme kii dañ ko xam nga mbër yi duñu ay ngaakate àllarba ñoom sax duñ ci tukki duñ ci wattu duñ ci sangu hmm. àllarbay kare ah gars yi de nee nañ waaw léegi nag comme que jeudi la Alburax ah. c'est la structure de l'innovation hmm. la Alburax c'est la structure des innovations moo ànd ak seen affiche ànd ak 2 ak Bantamba hmm. nañ ko def nañ ko ko jox nañ leen dajale suñuy doole. amul benn problème. offrir ko Sénégalais yi su ko defee ñii di gis Balla nga nekk nga nekk ci Tafatine. ak yàgg mhm. ma nekk ci Balla Gaye maak Fadam. moom mën na nekk loolu mën na nekk. xanaa su boobaa même si ñoom la te a été un plaisir frère jaajëf. jërëjëf kontaan si ñëpp di baalu ñëpp àq di leen baal di wax ni tamit force reste à la loi CNG li nga xamante ni. digale nañ ko muy ay réglement nga la waaye nañ ko respecté mbër yi respecté ko encadrement bi aussi. respecté ko mais loolu am solo la ñu ngi nuyu àdduna bi yëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura. di grand élage. te en Afrique quand un griot vient en partant il faut respecter la culture et la coutume sénégalaise en faisant le géwél. pour